inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun indi leen fi benn leetaru tàggee sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Basir xalif général des Mourides mboolem njabootuk Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadimu Rasuul sëriñ Cheikh Jëmb Fall ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall xalif général des Baye Fall mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sëriñ Aliyu Fall Bada ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Cheikh Fall Cokke ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Amdi Fall jëwriñ ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Assane Fall Warak ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Fallu Fall Maam Say ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Assane Fall Taaleen ibnu sëriñ Mbacke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey sëriñ Moussa Fall Kees ibnu sëriñ Mbàkke Fall di rakk ci ki wàcc liggéey maam soxna Fall bintu sëriñ Mbàkke Fall ak mboolem ay rakkam mboolem bokki Mbàkke mboolem bokki Njaay mboolem bokki Fall bokki Touba ak Mbàkke bokki Njare bokki département Tivaouane arrondissement Meewaan kilifay diine yi ak kilifay aada yi xarit yi soppe yi ak wëllëre yi taalibe yi réew mi ak bitim réew sëriñ Cheikh Fall Cokke ibnu sëriñ Mbàkke Fall moo leen di yëgal wàcc liggéeyu seen jëwriñ seen sëriñ sëriñ Basiiru Fall alxuraan ibnu sëriñ Mbàkke Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin ci guddik talaata ji la wàcc ab liggéey ca Touba Paaleen sëriñ bi joxe na ndigal ngir ñu war koo jébbal boromam ci fajaru talaata ji nekk daañu ko waajale ca barabu maam Cheikh sa Diène ca armeeli Anful Mahad jébbal ko boroomam ca armeeli Baqi sëriñ Basiru Fall mi amoon na juróom ñeent fukki at ak ñaari at mu ngi ñaan suñu boroom dolli ko ay ngërëm ak i leer tabbal ko ci jannatul firdawsi ci barke maamam ju baax ja maam Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Xadimu Rasul sëriñ Cheikh Fall Cokke ibnu sëriñ Mbacké Fall moo def tàgg bi tàgg bi jóge ci Essence Baye Jégal communication bàlle nu ak jërë ngeen jëf